basuma basuma mbare tay senegal direct la wax ndax ñu wax lu tënk lu deggu te gaw devant la mythomanie religieuse la parole n'a plus de sens fenkat bu ñu kër diiné ci kilifa diiné wax na ne kon lu neex way wax fenkat yi bu ñu làqati ci ginnaaw kilifa diine ak ci këru diine lu neex way wax tol lañ fo xamal nag senegal deug sa deug sa day jot romb nañ gat sa gat deug sa deug sa moy lan gay yi rajo bi dañ koy def ñun tam dañuy magal suñu magal waaw foog ñu màggal suñu magal man tey je me sens mal à l'aise nekk ab murid buñ ne Macky Sall dugg nga si jàmm génn nga ci jàmm kon yéen daal lii mooy génn ci jàmm 85 morts 1800 prisonniers politiques lii mooy génn si jàmm lii la sëñ Touba wootee woon jàmm soo waxee ñu ne la kenn warul wax. ndax fen buy defar moo gën dëgg buy yàq or là nous sommes à l'heure du verseau basuma basuma mbare chaque jour moo wax leen ko buñ ne la yàlla ne je m'en si lu neex nit encore une fois fii ku fi judd dañ lay tuddee am nga turandoo xeex bi yéen waxante dëgg dafay jot def fa ñu teg ci laqat jàkku moy yow yegg nga bo leen ko bëggee tam di tari ay sarté xamu leen sari c'est faux man mo tax seen julentu yi gëw mako julentu la ko jappé prière to gay bu ñu tegul laqat jàkku rasuulam gi nga def ko abduhu muy yow lo andi sa rew muy yow lo paré ngir def sa rew muy yow la la Sénégal jaral paala sa paala sa poche rusulin ko da am foo sa poche encore une fois chaque at lakka njàkkum day sopeku at gu nek sar day sopeku sidi lamines dam na wax dina ak jamono fokk ñu yegg ci abdou xuy moy lan ñun lu ñu paré pour def ñun on est prêt pour quoi ak fi sonko yegg ni kon tey diine Sonko moo gën dëgër suñu diine ndax sëñ bas Abdou Khadre tey toog na ci kanam ñëpp ne leen carrément nii la dëkk bi demee ñu ngi wax jàmm. Ismaïla Madior Fall si akulaay ah, taalaaw day wax ba pare kilifa justice woo ko naan ko grand mu ne waay ndeysaan liy waa ji waxoon Macky Sall day jël kilifa def la ay tuub moom la def Ismaïla Madior Fall te fichu à vie Macky yàq na la. candidat yi xeex bi metti lool kilifa armée bi yéen jeunesse bi vous êtes prêts mais seen autorité yi jalousie mal placée la ñu am kilifa système bi muy kilifa diine woo kilifa aada woo multi système woo jalousie mal placée la ñu am si lan Sonko dafa yàqamti il est assez jeune mën nañ teg keneen transition maanaam tooyal seen ceeb ñu raxas li ñuy raxas Ni cette ancienne après Sonko peut venir en 2029 jeunesse bi cette jeunesse là on a fait quoi gars man eh, man combat si c'était la personne de Sonko du ne le pas de si c'était la personne de Ousmane Sonko je ne sais pas si suis personne. doomu pas ça de manifester man de di projet yéen a ma tax di xeex waa Ousmane Sonko nañ leer kenn tëjul Ousmane Sonko kaso ñun ñëpp a nekk kaso ndax ñun ñëpp a am pression. saa waay sëy yaa ngi tas da ngay jox sa jëkkër Viagra du la mënal dara ndax tëdd Sonko Sonko Sonko Sonko. da ngay jox sa jëkkër kii kii kañ laa la wax mu tëdd naan la def ndayam jigéen ñi soxla nañ seen jëkkër mënuñu leen jot ndax Macky doon na xaram ji toog si kanamu xalif généraux yi yëgal xalif général ne ko non Sénégal pétrole ak gaz bu ñuy dugg tey ma waxati pétrole ak gaz yéen Émirats lan moo fa feeñ Émirats développé est-ce que Émirats am na xeex pétrole ak gaz ak lu te suñu dos moo ko ëpp te Émirats amul xeex Russie amul pétrole ak gaz pays Europe de l'Est yi mais ñëpp am pétrole ak gaz Chine amul pétrole ak gaz mais ñun africain bëgg nañ ñu gëmloo ne Afrique dëkk bu am pétrole ak gaz rek foog ñu xeex pour maintenir ko c'est faux c'est archi faux dañuy fan Macky da ngay fan pétrole ak gaz waaw yaa mën na dul tu mens sur toute la ligne kooku ay preuve tangible lañ ci yoon par contre pétrole ak gaz day tax nga génnee xaalis boo xam ne mën nga renforcer sa sécurité <laughs> Assimi Goïta or kese la jëlee fay xoola laalagul pétrole laalagul gaz or la jël fay sécurité or kama sont produire or Mali or Mali bi tay nekkon or de France France nek 4e producteur or mondial or Mali ni dan ci bin or France diko andi fi France diko déposer Assane Goïta en ah, combien il a produit combien de kilos d'or combien de lengo d'or de 1 kilo 1 kilo ñun Sénégal ñu né c'est impossible ndax sama dollar momu ñuko deug neex yalla pétrole ak gaz makissal pétrole ak gaz bobu dem andi xex Nous devons faire comme les Africains comprendre Le Pétrole et le gaz, si tu vas dans ta sunure, tu vas faire un bon pour coup d'état. Tu vas faire un pétrole et gaz, nous devons faire que nous comprenions Mais les cette jeunesse-là, cette jeunesse est extrêmement, extrêmement éveillée. Parce que moi, ici, nous avons une question qui me dépasse. Mais, vous avez une question manam fay salu ñew sa jëkëram pour mu wax yu mu xam ndax ap ragal la andal yeen soxna Ousmane Sonko fex na bu len fi nek doomu ben kilifa diine am ngeen seen bay am ngeen seen nday Ousmane moy seen kilifa moy final do len doomu ken on avance ba tax na tay yaa ngeen ne bàyyi nañu Cheikh Bara di jubilé

ci biir institution yi si biir institution yi si biir constitution bi te ñoom bokkuñu si ndax Sénégal lu dëkku diine dëkk layit la kilifa diine yi nga nar a dugal ci biir institution yi noo ñoo nar a ëllëg yàq gouvernance su réew mi lii moo daanal tey di Dia allez vérifier encore le livre de Mamadou Dia il avait prévenu Senghor ne woon na ko diine ji mënuñu ànd ak ñoom mënuñu li ñuy def rek dem tàggu Touba wala dem tàggu Touba nekk yow ñun yi ñun ñooy gouverner Sénégal pas réew mi c'est une république du ko kenn te xaw ma nu mu demee damay jékki-jékki rek ñu dugal ay numéro yoo xam-xam fu mu jógee Mamadou Dia tey lii ñu dal nii tey ñëpp naan na Serigne si wax na Serigne si wax si noppi lii la Mamadou Dia préparé lii moo yóbbu Mamadou Dia kee dugg lii lii ñu dal nii tey ñëpp yaakaar si xalif si wax Macky Sall toog si kanamu xalif bi di fen sëñ Bass Abdou Khadre toog na ko laay lax ila laa d'accord ma fen tey laay fen ba nga baal ma ndax li nga teg sa tontu nii boo ko teggee askan bi weddi ma li nga teg sa tontu sàll ngaari boo ko teggee sama sutura xaaweeku sama santu mbàkk réer ñun xam nañu code yi daw yëpp code yi ngeen di waxee yëpp dégg nañ ko xëy na peuple ba déggul code ya mais man dama dégg code ya bi nga ne réew mi si jàmm dugg na si jàmm génn si jàmm da ngay fen yow <laughs> ya, ya, oh. bas abu khat timah timma sur toute la ligne timma buñ jàkkaarloo woon mos man la da ngay wala sedem ay procureur say bàyyi ñoo may jugé man la da ngay fen asuma laa yow buñ jàkkaarloo woon man la da ngay fen man mom kooku moom saa yi ku dul suñu borom buñ jàkkaarloo woon nga xam lépp dëgg la mu ne da ngay yow yaa taxaw tey ne Macky Sall gongo Touba liggéey na Touba liggéeyu waaw blanchiment d'argent bu ñuy def yëpp fofu la bàyyi bas bàyyi di wax ay chiffres booy wax ay chiffres ñu wax la chiffres yi fu mu jógee blanchiment des capitaux bi ngeen def si université bi xam nañ ni mu demee blanchiment des capitaux bi ngeen def si Massalikul Jinaan xam nañ ni mu demee blanchiment Touba si kanam ñuy blanchir ay ñoom Doro Gueye ñoom ñëppay pëtëxlu gis nga affaire bi xam nga lan la Touba lii nga pëtëxlu xam nañu réew mi nu muy doxee carrément actuellement nag nous sommes à l'heure du verseau comme am na ñoo xam ne ñu ngi live di ko toj man détail yooyu seen blanchiment d' argent yéen la concerné mais yow sëñ Bass Abdou Khadre yow boo ne Macky Sall dafay quitté si jàmm tuuma da ngay fen da ngay duul sur toute la man moom léegi moom réew mi xoola amatul kolo kolo dañu waxante dëgg yi mu leer ñu ne libéré nañu Cheikh Bara ngeen di jubel ngeen di jubilé pourquoi jubilé est-ce que institution yaa ko libéré justice bi nga tëj moo ko waroon libéré mais ngeen di tëb sëriñ si ñooy gendarmerie sëriñ si ñooy police te keroog bi ma ne sëñ Mountakha moo tëj Ousmane Sonko ñëpp mere ma ana mu tey fële mu mujjee sëñ Mountakha moo tax ñu bàyyi Cheikh Bara kon bu ñu bàyyee tey Ousmane Sonko ñu ne sëñ Mountakha taxaat waaye léegi kon kan moo tëj Ousmane Sonko ba pare nag ñu bëgg ko jiñ Macky Sall gars yi di dëgg dafay neex yàlla man kenn du ma rey ci dëgg ku muy neex a ku muy naqari gënu leen ma nekk murit mais bu dëgg jotee je me bal ci ku muy xamul moom moo xamul mais ay ragal yi fekk yéen ñi di calculer gauche droite yéen ay gos gauche droite rek mais samay wax déggoo je signe je persiste. lu bëri ñu ngi koy jiiñ Macky mais Macky balaa mu koo def day réunion am fitu ñu ko boot Macky tàppet la bu amul kudd du nangu lekk. Cheikh Bara ñu ne tëjoon ñoo la ubbi ñu d'accord ñu nokk la si kaso ñoo la ubbi sëñ Assane boo amee koy mere. d'accord accord Marème Faye Sall prête nolo la Macky Sall prête nolo bo amé koy mere meral say maam ak say bay ñi sante mbacké ngay mere moom dëgg ma sama ñom ñoo bay Macky ci lu koy neex ray 85 personnes ñi mu ray yépp ay jihadiste lay manam ñi mu ray ñépp ay terroriste lay buñ dé ay terroriste ñoo ma gënal ndax ñoom au moins terroriste boko ray fék nga ko au moins muy julli nga ray ko koku am na diiné mo tax nga sen ko diiné ñetti diiné ray ko mo tane yeñu di tok, muy dox tok muy dox bi nak dina fi dag par force dox muy dox bi di ngeen dox seen taati tàng par force ñaqtee xet par force muy dox par force ñooy toog di sëñ bamba di duul rek moo julli woon si géej gi sëñ bamba gauche di duul rek ni ngeen di wax si sëñ bamba des historiens tous nos historiens là c'est des menteurs dem leen jëli livre yi am na beneen paa buy def émission ñoom la jorok yooyu dañ leen déglu vieux boobu loolu si sëñ bamba mooy kaat su ma ko daan weddi ñëpp <laughs> grand kalodo mos naa la ne grand sëñ Bamba mënul nekk chiffre 4 sëñ Bamba 8 la ndax 8 mooy dem dellu si 8 mooy wiiri wiiri jaari ndaare moo tax nit boo juddoo huitième jour ba lañ lay tudd dem dellu si 8 wiiri wiiri jaari ndaare sëñ Touba est loin d'être le chiffre 4 jegewul sax 4 ay maam Maodo bu ñu naan mooy chiffre 7 ak yooyu yëpp c'est archi faux archi faux laa noonu archi faux archi faux archi faux chacun avait sa façon de vivre fii la ñuy wax chaque jour maam Maodo daggoon xeexee dimension sëñ Bamba di xeexee dimension ñene ñi di xeexee seen dimension tey nag dimension yooyu yëpp dajaloowul seen i sët si ay nit la daje ñu doon ay révolutionnaire jóg bëgg changer réew mi moy wa passé fi lu ma leen contre contre ndax man Ousmane Sonko dong laa ci jalonel ak sama booy bi ngañ remobilisation bi amatul feral xoola kenn du sëgg dañuy ni siggi lu ma gën a bañ sama àdduna gën ko ragal mooy gàcce man je défie tout le monde man ci défiance xamee mo si sëriñ xamee mo si ndey xamee mo si bàyyi ndax yàlla laa yaakaar ki la fi andi yaakaar ko ki la fi andi yaakaar ko gëm ko sa yaay fi la ñu ngi dund booy conseil laa leen jox lu leen neex def leen du mujj fenn ci kaw nga xam ne sa yaay daa am doole ci yow kot mais gën bàyyee jàmbur yi dem sëggal bàyyee jàmbur yi ñu ñëw bëgg a sacrifier l'avenir de toute une jeunesse man je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord Ismaïla Madior Fall il est temps que nag tu te téye mosul am góor gu mel comme yow Tengé, mosul Ampar comme yow négatif Je mosul am ça n'a jamais eu un imbécile un lâche un négocentrique. un varin, yow es tout yow l'imbécile de la nation yow. Il y a y a ci réew qui yow Idrissa Seck Il Ismaïla Madior Fall Macky Sall man. tey bu Macky Sall génne woon tey silibam teg ñu nar a votel tey Ismaïla Madior Fall mu dóor ndayam bal jël silibu Macky Sall bi fal Ismaïla Madior Fall yaay doobaram yax Antoine Diome bi ngeen di tracé si fii au mu ngeen di mu ngeen xaar fii billahi bi pas France boo leen ñëwee bi ngeen di tracé xam nga dem nañ fa dem leen biir assemblée lañ leen di fekk noqanteeg yéen après fu mu yem neex fii dëkku loi fii yoo xam dañoo soltenu négatif fii di dëkku ay góor

Antoine tant ministre mu dem inauguré Afrique rek la am seen inauguration yëfu madame, on en a marre parce que nous faisons bu ñuy on vous traite de bâtard vous nos gouvernants ay kilifa fi ñoo leen de bâtard ngeen fakk ñu neex dañ dugg bureau fier d'être noir mais buñ la wone say le yoo xamné say gouvernant dañ koy def da ngay sa bopp ak seen chèque ay chèque bu 15000 euros 14000 euros pour benn bac lii mooy Sénégal peuple la jeunesse réveillez-vous suba Pape Alé jox na leen code bi code bi ñu leen jox sa clair mooy vidéo boobu ma ne leen woon le 15 février suba boo leen xëyee dañuy toj oto Ousmane Sonko génnee ko patriote yëpp saaga man day weddi ko ñu xëy toj oto bi génnee ko exfiltré yóbbu këram point final c'est le passé on passe vidéo boobu la Pape Alé ñoo ñaan ngeen dugal ko yéen ñëpp vidéo boobu la ñaan ngeen dugal ko yéen ñëpp man nag ñun di def veillé ñaan Youssou Ndour moo sañoon jonkanal George Floyd non man de dootuma laajat ne defuma ko à la mémoire de nos morts George Floyd bi moom léegi sax devient une obligation ñaari pour nos prisonniers politiques kooku moom dama koy ñaxtu moom Ousmane Kabiline Diatta ñu njëkk jàpp ba si ku ñu mujjee jàpp Dabe bu Sonko bi Zahra bu Sonko ñoom ñëpp ñaanuma kenn bu dee ñaan rek ay tax ngeen libre yàlla buñ leen libéré. amuñu droit ñaan nday kenn ndax tooñu ñu kenn ci seen yoon lañ nekk dañuy xeex dëgg defuñu lenn amul lenn ñu def seen PV bàyyi leen ñaan yi suñ ko mu ngi tëdd hôpital ñaanul kenn nanguwul co défier un système entier ay borom doole yoo xam ne mën nañ ko lekk moom mën leen di défier yéen ña nekk bi nañu ñaan di ñaanuñu ndeyu kenn dañuy libéré ñi par force wala Macky génn réew mi la jeunesse li ngeen di gis Dakar noonu nag ñuy tourner di tourner c'est pas la peine d'en parler. bu ñoré rek dinañ leen ko wax li ngeen di gis Dakar ñu fess fa jël parce que dafa am ño xamni ñepp ñëpp chef sen dafa am ñu mu ñom ñepp koor yëpp dajaloo ñom ñepp li ngeen wax rek la grande mère bo leen dégg ñu leen guerre froide guerre chaude dans chaque état il y a deux armées affaire étrangère xam ngeen ne armée la affaire étrangère c'est l'armée qui mène la guerre froide ministère des affaires étrangères moo tax moo gën a bëri agent C'est l'armée qui mène une guerre froide. La guerre froide se mène à travers la diplomatie. La guerre chaude se mène à travers le peuple. La guerre armée, là, ça se mène à travers le système. Ça se mène à travers les multinationales. Ça se mène à travers les Nations Désunies. Ça se mène à travers la CDAO. Ça, c'est la guerre armée. Guerre armée. Seuls les poltrons vont vers une guerre armée. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, la guerre armée, c'était derrière nous. Mais en Afrique, nous sommes obligés. 63 ans d'indépendance, toujours l'Afrique, 63 ans après on réclame notre liberté. Donc, est-ce que c'est cohérent 63 ans d'indépendance, chaque jour Afrique libre, Afrique libre, man sànq ça jubilé Afrique libre ba si des dit, man man man mais qui tax man ñu jox 1960 ba avons 2023 mu nekk di libre eh c'est fini la jeunesse sur le terrain kuy qui na kuy dit ku dund vendredi waratuñ leen may jàmm ajuma yi dañu war a taal ndey fépp waratuñ leen may jàmm déggoo ñii dañu war a deew ak ñoom tànk newu leen ñu benn autorité APR député APR dee na wala rendi ndañ ndañ benn ministre xeexu leen mën nañu xeex ba jëlee fi Macky Sall mais bu bu ñu rendewul seen ndey ñoom suñu 85 morts yi ci répondre ñoom ça ne va pas dëgg neex yàlla violence barbarie moo koy régler ñii foog ñu andi leen giita ngaas booy arme booy bu bëgg arme ak lépp amul fit ñii arme lañ jël tegal ñu ko moom ay arme ci des man ay Sonko ni mu demee Sonko ni mu kiiyee Sonko pion la ci biir xeex bi remobilisation générale ñun demee veille la ñu am nocturne am na ñuy dem Bordeaux su amee ñuy dem Bordeaux si matinal bi par véhicule mu leer ma ne dañuy dem 9h dem manifester départ at ñëw fii 20h fekk ñu fi ñu ñëwaat suñu veille je suis partant non le di du mois gars yi foog ñu manifester foog génn.

tari leen ay lixlaas point final loolooy révolution il faut qu'il y ait des morts point ay nit di sacrifier fii gauche droite di ragal amatul ragal xeex jot naa demee ceux qui sont partants sur le terrain gars yi dañ koy mbëkkante amul màggali ñoom bàyyi la ñu màggali ñu ne dañuy liggéey sur le terrain Macky Sall ay fen la bëgg jël def ko dëgg fenam yooyu dinañ ko delloo mu nekk ay fen ngeen ne Touba yàllaa fa toog suñu bés Abdou Khadre du di duul ngeen foog na bu sëñ mun dara bu bu leen yàlla mayoon dara tey saison boobu mu toog di yëngalu bu dafa waroon di yëngatu na aras bi yëngatu ndax ñaari duukat yi daje di fewlantoo Marème Faye Sall di leen surveiller ana xaram ko vous ba pare vous c'est ça république Mamadou Dia avait raison Mamadou Dia avait raison lekk tôt ou ñooy yàq réew mi Mamadou Dia raison tey mu ngi nii 2021 réew mi ñoom ñoo ñu yàqal ñu de jox ko mu rendi ab yéefar moo rendi bu doon ab chrétien moo rendi bii heure Sénégal développé na bu doon ab juif moo rendi bii heure Sénégal développé na bu doon jullit moo rendi bii heure Sénégal développé na mais ab franc maçon moo rendi moo tax Sénégal demee nii tey muy Senghor moo njëkk rendi tey suñu yaakaar moo tax ak doomam doomee Blaise Diagne doomee Karamata Ndiaye bi moo ñëw bëgg a rendi waat bi mais bii biddaah yi Macky la ñuy rendi ndayam nga ne xaram ko téye man man man man Macky Sall di ko ko moo tax sànq sëñ bas dulkat bi rek laa déglu jàll ci leneen dégg nga bas dulkat bi rek laa déglu jàll ci leneen. gars on passe à autre chose reste concentré remobilisation Pape Alé Niang nee pétition boobu am na version anglaise am na version française ngir yàlla ñu ñëpp signé ñun beneen pétition bi war dem ci Tunkara gars yaa ngi ragal mu ngi si loo xam 1000 la ñuy soxla gars ragal gars yi bu bi yéen léegi occupé wu si loolu yàlla def leen ko vidéo bu mu wax suba man ko ko am nako envoyer envoyé du facebook man ma commencé ko partager jël dougal sama statut mais ñep combat bi fepp lañ koy combat ñun nak seen façon xex bi c'est trop pacifique pour nous ñun dañuy xex ñu ngi ci terrain bi dundal ñuy boy xex dañuy taal neex nakari dañuy taal au final suñ ko moom dina libre wala réew mi mom taxaw rek kolo kolo maki tu ne vas pas gouverner ce pays te di nga dem élection par force suñ ko bokk par force yow do bok sa nday du bok sa bay du bok ndax buñu ñu ma dem sulu len bis de pute da ngay mere ba doo bëgg kenn ku ne di dimbali ndax Macky Sall man nag xaral gi. gars yi jàpp si combat bi waay jigéen ñëpp ñu ngi defar remobilisation des fonds parce que dafa am lu ñuy waajal ñun Dakar ñu ngi andil gars yi ñu fees fa jàll wër loolu bàyyi leen ba mu ñor dinaa leen ci defal live bu spécial amaguma lu ma leer ci même numéro bi 0605 bi 59 96 si combat bi rek dañ koy dóor mu daanu dañuy génn ku ma woo foofu dinaa la jox numéro yi ngay dugal jàppale booy ci terrain bi parce que dama ñu ñu fixé mais ñun dinañu màggal suñu manière dinañu màggal suñu manière loolu maa leen ko dig la presse va encore en parler ñu ngi naan tuyau bu dagg tuyau bu dagg te yéen yaa ngi ni dégg ñu ngi wax waxu ndox bi Touba ba tey te ba tey waxaguñu dëgg lii moo leen ñoom ñëpp ay fankat lañ te ñu ngi toog ci kanamu Macky Sall di fan toog ci kanamu askan bi di duul ay na xaramata